yi ñu war a def ñu delluwaat ci yar gone yi tuut tànk yi loolu lu am problème la ci suñu penc mi tey ji amatuñu jotu xale yi loolu moom mooy dëgg amatuñu jotu xale yi Oustaz Aliou Sall <laughs> sama xarit la maa ngi koy nuyu mm-hmm. dafay wax ni gone yu bari seen ndey génn àdduna ba ñu dàqee mi daan ba siet teet teet dégg nga li ma dégg <laughs> gone yi bare seen ndey génn àddina ba ñu dàqee jànq ba waaw mais loolu <laughs> jànq bee doon ndey ya <laughs> waaw waaw donc c'est pour dire que amatuñu jot pour yi nga xam ni moom la ah. li ñu war a def ci gone yi mhm. léegi da ngay dégg ñuy wax bàjjanu gox waaw bàjjanu gox foo ko déggee mooy bàjjanu kër tumranke na fa mhm. dafa amatul bàjjanu kër waaw dëgg la waay waaw te bàjjan da daan yar looloo tax sëñ Moussa yi wax ci xar nu bi ni kër yi léegi dañoo wéet. waay dëgg la waay appartement yàq na lépp waay ña fa nekkoon bàjjen tanta maam ku ci nekk am nga rool boo doon. xale yi xamatuñu kuy bàjjen ak kuy tanta. ñëpp tata rek ñëpp tata la. yaratuñu. léegi ñi koy jéem a dabantal mooy sama xarit euh, euh, docteur Massamba Gueye. di def ay programme mu compte. suñu soppeeku dëgg la waaw Massamba waa kër gi xam nañ ko bu baax. di def ay programme mu lépp yu demee noonu di daje xale yi. di di leen di dabantal. loo xam ne dafa waroon a am ci kër gi. te manqué fa sooxe fa. wax nga dëgg mais muy lii moo tax ku ñu war a jàppale la. parce que loo xam ni nguur moom moo ko waroon a def. pouvoir public moom moo ko waroon def. moom mu jël ko substitué wu di ko ko seetaan dañ ko war a ko war a jàppale. programme yu mel noonu. te muy dëgg te muy dëgg donc euh, moom laay wax tamit suñu tarixa yi dañ leen war a gën a jàppale. parce que mm-hmm. ñoom it bokk na ci seen mission bu ñuy def mm-hmm. éducation la. Mm-hmm. bi may wax léegi dabantal. mag ñi nga xam ni jotuñu am kër. jaaruñu ci kër te ñu ngi ci mbedd maa ngi doon xalaat tarixa yi. dëgg la parce que ñooñu dañu leen di xaw a fàtte dimension bi nga xam ne éducation moo taxit lu ñu leen jox pour jàppale leen. ci liggéey ba ñuy def doyul. dama mës te lu ñu war a def la. dama mës a toog ak benn borom xam mi ngi may xamal li nga wax la wax mu ne ma xaw a yaa ngi xalaat bu ñu amul woon tarixa yi ba nu dalal suñu doom yi xale yooyu yëpp ca lan la ñuy nekk yéen a ngi posé wu question mm-hmm. mais loolu wallaay dëgg la sëñ Abdou sëñ Abdou Karim li mu ci ah. récupéré kenn xamul mu toll kenn mun la ko wax parce que dem ba ci filawoo yu guddi ay deux heures du matin jëli tey boo demee këram am na ay jëriñ ñu fa ne ci filawoo géej waaye la leen jële guddi allah sëñ Modou Kara lim ci récupéré xool maam Thierno lim récupéré sëñ Moussa Fassi Moussa Sidine wala ku ci ne ci ñoom seen mission yi ku ci ne boo xoolee fi mu jaar ak ni mu def ba récupéré leen alhamdulilah am na ci ñoom dañ daan teg comme sëñ Moussa Fassi daan teg ay CNA musique teg ay kasetu Bob Marley ay James Brown xale yi ñëw bu ñu toogee tuuti mu commencé di waxtaan <laughs> mujj bu tegee musique ñoo ko noo sëñ bi fayal musique waxtaan bee ñu dàqal pour wax la na ni ay ñoom ku am ngay stratégie am ay méthodes yoo xam ne récupéré nga ci lu bari moo tax ñu jëloon jàppale léegi da ngay xool <clears throat> suñ daara bu defar daaraam mm. daal dañ koy jox junni weer bu jot mm. junni dafa bëgge <laughs> junni lañ ko dal na ko la ko sëriñ jaara di fayee ko wax nga dëgg de téeméer dong da cee doy wala juróom boo melee Eva balaa ngaa fay faw ñu dab la ne la hmm. kaay fay ba pare ngay dem nag di ci fan weeri junni feneen foo xam ni hmm. yaakaaruma ni moo ëpp njëriñ li sëriñ jaara bi di def hmm. ay waay moo tax mag bu baax bu nekk Medina Gunaas nee na bu fekkee da nga nekk wéyjur boo xam ni am nga dara waaye xamoo dara nga jël sa doom boo xam ni amul dara xamul dara mhm. dénk ko sëriñ daara boo xam ni xam na dara waaye amul dara te yow jàppale woo ko ci dara sa doom xamul dara bu dara mami li ngeen de bii ko waaw mami moom ko ay waay waay waay mag mu am moom xam na dara waaye amul mais yow jàppale ko ci dara mhm. léegi na nga bëgg sa doom xam dara loolu am donc je crois daal li ma bëgg a wax mooy Euh, tarixa yooyu mag ñooñu. Mhm. yoon yooyu nga xam ni rëdd nañ ko. Mhm. mu téye réew mi nag loolooy dëgg. Mhm. lu ñu leen jàppale doyul. te loolu suñu warugar la par rapport ak ñoom. parce que dañuy jàpp ci former xale yi. dañuy jàpp ci liggéey. xale yi di liggéey dañuy jàpp ci jàmm boo xam ne ak dal gis nañu li am ci réew yi ñu wër. mais fii ay problème waaso doo ko fi dégg. Mhm. incha allah parce que ba keppaaru mag ñi koo fa dem. fekk fa waaso yu bëri yu fa dajaloo toog fa dëgg la. Mhm. donc ñu créer benn genre fusion boo xam ne. Mhm. loolu dañ leen ko war a sante war leen koo gërëme war koo gën a suuxat. tey jii bu ñuy wax problème mu citoyenneté réew mi ni mu demee ku nekk nu la neex ngay def accident yi ku nekk mais je crois que bu ñu delluwaatoon ci seeni i jéem a fexe ba wasaare ko dañ ko war a wasaare woo. bu fekkee boo xoolee tey jii yaafuus bi am ci ñenn ci ñun. Mhm. nga xam ne liggéey bañ ca waroon taxaw taxawuñ ci. je mhm. crois que mag ñi joxe nañ ñu ay exemple yu wér. yoo xam ne ci liggéey dong la ñu nekk. Mhm. sàkku xam-xam liggéey. bëri na ci ay modèle te ak noppale. ba pare nag di def lu baax. di sóoraale ëllëg. sëñ Mbay Jaxate dafay wax ni compte bancaire baax na lool waaye bu ñu fàtte compte bàmmeel mhm. waaw donc nañ ciy góorgóorlu mhm. nit ku ne jamono ju ne ak li ngay def ak li ngay wax mhm. nga ciy sóoraal ni ëllëg mën nga fee jóge wala jamono ba nga koy wax sax mën nga faa jóge dëgg la donc bu ko defee nga nekk ci te te professeur ma firndeel li nga wax xanaa xamoo ne émission bii bu ma duggoon léegi xeex ak baara fii vue yi day yokku de wala ma